ci ci ci économie dëkk ak tukki dem ak ñëw ni mu amay solo ci économie àdduna bi nga dem ba ñu tëj nañ aéroport avion du dem du dikk te du Sénégal rek de monde bi yëpp kenn dematul kenn dikkatul nga ne yow ba léegi yow gisagu loolu lay firndeel na feebar am na. waaw loolu jaaxal na <laughs> doy na waar léegi lan la nit ñi bëgg ñu won leen ñu gëm ko ñu bañ ko gëm looloo am. feebar bi moom am na. am na et autre chose mooy ñu ngi sant suñu borom. Mhm. ndax. yéex na yegg si ci ñun te pour le moment cas yi ñu amagum ñu ngi koy circonscrire. Mhm. mais li wóor ba wóor su nombre de maladies dépassé amuñu ko mënuñu ko ku la ko wax it daf la koy nax daf lay nax. ñu nekk ci système de santé ministre de la santé moo la ko gën a xam président de la république moo la gën a xam ne Sénégal amul moyen ñu am malade yu bari di leen fajandoo amuñu ko. moo tax ñuy wax li ñuy wax nii yëpp wax dëgg yàlla artu yëpp looloo ko waral wallahi azim wallahi azim parce que dañu xam ne waruñu yegg foofu yàlla nañu ci yàlla musal waaye nit a koy jëf pour ñu yegg fa mhm. donc ñu ngi appelé population bi ngeen góor mhm. la ñuy digle pour bañ ko am yomb na raxasu la digle mhm. te raxasu bi saabu ak ndox wax dëgg yàlla nag lu ñu ñàkk ñàkk am nañ ko ndax ku yeewu suba di nga sangu Sénégal góomu ku yeewu Sénégal sa doo sangu ku mën a ah. sangu nag mm-hmm. raxas sa yaram yëpp xanaa war ngaa mën a raxas sa loxo mm-hmm. nañ ci góorgóorlu di raxas loxo yi ak saabu ku mën a jënd sa gel hydroalcoolique léegi ci yoon bi bu doo mën a dix personnes yu ma koy jaay ci yoon bi nga jël def sa saak bu dee da nga war a déplacé wu te mënoo bañ a déplacé wu nga utiliser ko di ci kii mm-hmm. beneen affaire bi mooy liñ ne nañu toog ci kër yi dafa am solo parce que chaque fois que nga déplacé wu. am nga risque euh, ñu contaminer la nga jàpp ci maladie bi su fekkee ne yow da nga feebar mun nga wàll ay yeneen nit donc le fekk ñu toog dal dafa am solo. Mm-hmm. mesure de confinement yooyu dañ ko war a respecter. Mm-hmm. et man man de kuñ buñ ma laajoon sama avis danañ ko gën a rendre strict ndax ku nekk da ngay xam ban genre population nga am ak yow. yow soo xamee depuis le début que ay bañkat la kooku moom lu am la sénégalais <laughs> naturellement bañkat la mm-hmm. mun loo ko imposer dara mun loo ko def loo dara loo ko ne mister no balaa ngay wax dara danaa na noo ba pare xoolaat di nga wax ne ah waaw wax pourtant dinaa ko mën a def mm-hmm. kooku suñu nature la comme yow xam nga ko il faut prendre les devants ne comme nii la demee man damay appliquer mesures yi gën a drastique ndax jàng naa ko ci yeneen réew yi France dañ doon raay <laughs> léegi génn nañ ci raay bi militaires yeeg policiers yëpp ñoo taxaw ku ci génn ñu ñef la ci kaso bi boo mënul nga fay sa amaan wala ñu def la ci kaso bi pour dire que toll nañu foofu ci seen réew parce que xam nañ ne loolu rek moo ci génn mën a génne population bi mhm. ngoonee dinañ génnewaat mhm. mais l'histoire en montre mais pourquoi chaque jour ñu ne yokku na waaw ah, mais parce que wàllante bee tax wàllante bee tax moo tax ñu ne na ñëpp toog pour ñu kase chaîne de transmission bi mhm. ñun malheureusement maîtriser wuñu ndax ñu duggoon ñëpp dañuy yéex a tëj frontière yi. Mhm. frontière boo yegg si aéroport lan lañ lay defal jël sa température. Mhm. bu sa température jugut mais dañ lay bàyyi nga ñibbi sa kër tranquillement looloo amoon booba ñuy tëj frontière yi. Mhm. ki nga xam ne feebaragul parce que nañ nañ feebar bi dafay am incubation day am jour balaa ngay euh, symptômes yi di commencé di feeñ. loolu boo jógee France wala nga jógee Italie wala nga jógee Espagne wala nga jógee feneen dëkk boo xam ne dafa baroon bu nga fay quitté xamuloo woon ne am nga feebar bi. ndeke yaa ngeeg doomu jàngoro jàngoro bi nga wàcc aéroport Dakar ñu jël sa température. sa yaram tàngut ñu bàyyi la nga dem sa kër yow nga yegg si commencé dox seeti mbokk yi ku nekk nuyu la normalement ku yegg si war nga toog sa kër au moins 15 jours pour surveiller ndax àndaale wu ma doomu jàmbur ndax naa am la. yi nga xam ne xëy ma ma rek ci confinement bi. dama bëgg a après kut kut nit ñi mhm. toog toog seen kër yi bàyyi lambiso bi mhm. bàyyi nuyoo bi bàyyi fóonante bi bàyyi laalante bi foofu la ñu toll kuy wax ak sa morom na nga nekk ak moom à un mètre su ko defee buy génnee ay ay postillon nga mën a xam balaa may laal sento bi sa foofu laay njëkkee mhm. naka la ñuy wàllantee ci feebar bi mhm. li ñu gis mooy ay gouttelettes c'est-à-dire nit ki wax ay tufli di génn wala mu tisoli c'est des gouttelettes hein respiratoires mhm. ñooy génn bu loolu génnee su la laalee sa gémmiñ wala sa bakkan daf lay wàll nga respirer ko mu dugg nga respirer ko ou alors kenn ku feebar laal benn table wala laal benn objet wala laal benn buntu bu laal benn objet rek yow nga laalaat koo pare laal sa kanam wala laal sa gémmiñ wala laal sa tamit foofu fu mu fokk bu loxo sa bët am na conjonctivite aussi il ñu xam ko donc boo laalee sa loxo boo jëlee sa loxo laal fenn foo xam ne ki feebaroon laal na fa léegi fekk loxoom takkoon na ay gudd leen moo tax ñu naan ki feebar suy tisooli na teg mouchoir wala mu jël kuddam su ko defee yooyu di génn buy tisooli mu bañ a laal ay loxoom su ko defee bu tegee loxom fedd wàlla ni mais bu sa loxo taqee tooyee gutleet loolu nga teg sa loxo keneen ñëw laal ci jël loolu laal ci kanamam laal ci bëtam wàll ci bakkanam wàll ci gémmiñam ko donc noonu lañuy noonu la ñuy wàllantee c'est une transmission interhumaine nit mooy wàll moromam par rapport ak gouttelettes yooyu c'est pas ci air bi lay lay lay lay promener wu ñu bari loolu la ñu ragal même ay man y a des gens qui m'ont posé des questions ci biir avion bi li tax woowuñu waa avion bi yëpp en réalité ça ne circule pas dans l'air Mm-hmm. donc nit kooku ñu mu gën a jege rek nga xam ne mu ngi wax mu leen di dal wala mu laal ay affaire peut-être ñooñu ñooy gën a exposé mm-hmm. donc loolu lay wàllante contact bi mm-hmm. ak postillon yi ngay sànni nii xam nga ak yow fi mu ne toog nañu à plus deux mètres mais su ma la jegee xëy na li may wax du génne génnee naturellement y a des gouttelettes ah. yooyu may sànni sa kanam bu la laalee mu mu mu mu mu laalaate noonu la ñu wàllaate wala nga laal surface moo tax ñuy bañ trans déplacement yi transport en commun yi nga jàpp kooku feebar jafandu ci kii bi keneen ñëw jàpp ci et cetera donc loolu noonu la ñuy wàllante léegi maintenant boo boo jàppee doomu jàngoro bi lan ngay sentir ci sa yaram. d'abord le prime abord lan ngay. exactement mm-hmm. ñaari signes yi nga xam ne moo gën a fës mooy fièvre bi qui dépasse 38 degrés ak sëqët bi mais ñetteel bi mooy fatigue bi da ngay yëg coono ci sa yaram. da ngay sonn lool waaw da ngay sonn lool da ngay sonn. mais ñaari gën a fës mooy sëqat bi ak yaram bu tàng bi yaram bu tàng bi sax souvent mooy jiitu. Mm-hmm. donc ñetti signes yooyu ñooy jiitu mais en dehors de ces trois signes là y a d' autres signes qui comme ay problème euh, respiratoire déjà maux de tête douleur. Mm-hmm. après métit mooy ñëw. bopp bi di métti wala muscle yi yaram bi di métti. loolu daf voilà voilà métti sax métti d' abord au début voilà comme grippe comme symptôme grippe la rek dañu doon mm-hmm. comme ça comme une et comme palio au début d' abord d' ailleurs. Mhm. les maladies infectieuses au dañuy xaw a nuru moo tax mu am solo ñu def distinction. mais bii loolu la donc lépp da am fièvre xam nga bii dafay ànd ak sëqat donc tam nga ne dama grippe wala dama kii. dafay ànd ak yaram bi métti courbature te dañ koy gis souvent ci grippe tamit. xam mhm. daf lay jàpp ànd ak métit métit bi nag bopp bi métti loo doon wala yaram buy métti. nga am vraiment ay douleurs musculaires yaram bi mhm. di métti leneen li ñuy li ñuy seetlu aussi mën nga am ay problèmes respiratoires. waaw ñoo xamante ne dañoo def pour noyyi. waaw à être vraiment sérieux wala dis ne muy apat donc yooyu yëpp day ànd nit ki vraiment dafa am problème mu sa évolue étape yooyu mooy étape yu yu gën a grave il faut aller jusqu'à l'hospitalisation et réanimation malade bi perte connaissance et tout sax d'accord ma fàttali ne mbokk yi ñuy déglu ba léegi ñu ngi ci jano bi tey nag ñu ngi ci coronavirus ba léegi ak docteur bi nga xam ne moo di docteur Amy Ndao mm-hmm. alors li ma la bëggoon a laaj mooy euh, fii ñu toll nii personnel soignant bi par mm-hmm. exemple fii ñu toll nii est-ce que yéen defe naa ne lu ñu leen defar rek doyul man loolu laa gis parce que yéen ñi nga xam ne yéen yéenay nekk en contact ak affaires yi yéen a ngi ci milieu bi mm-hmm. en fait est-ce que yéen gouvernement bi mi ngi bàyyi seen ay protection yi de prime abord parce que yéen tamit yéen bu ngeen aarewul kon fu ñu boobu point nag moom laa doon yegg si bi ñu waxee ci population bi ba bari ah, parce que yéen itam vraiment professionnel de santé dañ ci war a bu wax bu dinaa wax mu jëm ci population dinaa wax plaidoyer mu jëm ci autorité de santé yi mhm. ak toute bonne volonté boo xam ne war na mën a jàpp mhm. gis nga professionnel de santé yooyu bu ñu leen aaroon mhm. làmbaay ñaaw ndax dañ cee doyle la wut amuñu ci assez natuñu naturellement docteurs yi bariwuñu infirmiers yi bariwuñu sage femme yi bariwuñu doyuñu boog laa bëgg a wax doyuñu Sénégal te feebar bi won nañ ci dëkk yëpp que ñoom ñooy njëkk ñoom la njëkk lor ndax ñooy nekk contact ak personnes yi fii Sénégal dañu war a aar docteur yi il faut que ñu am ku nekk am ay moyens de protection doyagul de ministère commencé na déploiement mais fii may wax ak yow am na docteur yoo xam ne amuñu des mesures de protection ministère a ngi déployé structure de santé ngi déployé am na ay hôpitaux ay comité de santé ñoo xam ne xaaruñu sax dotation ministère. Mhm. commencé nañu jënd ñoom ci seen xaalisu bopp di subi y a des yoo xam ne seen bopp jëndal nañ seen bopp seen protection. mais il faut qu'il y en ait assez mm-hmm. que ministère assuré ko mais que les bonnes volontés yi ku mun a jàppale waa quartier bi sax nga xam ne man kat am naa centre de santé fii su ma mm-hmm. feebaree fa laay jëm boo ci mënee def dara damal fekk ne fenn nga gàddu sa ko paano nu ko tuddee ci carton de javel jox leen wala jënd say gel wala jox seen saabu ne leen kat docteur yi ñun dañoo bëgg wala ay ay masque wala ay gants ne leen kat ñun bëgg ñu dara der leen ndax lu leen dal du baax ci ñun kooku on l'ouvre à tout le parce que dañ nekk ci situation de crise boo xam ne ku bëgg a jàppale te am ko te mën ko def ko mhm. mais il faut ñu protéger personnel de santé bi c'est fondamental ils sont exposés ils sont au front voilà ils sont au front bu ñu loroo du baax neneen ni ñuy jàppalee personnel de santé bi mooy population bi nangu déglu suñuy ndigal li ñuy digal nekk li professionnel de santé wax nan nañ ko doxalee nañ ko respecté beneen affaire bi mooy mhm. ku feebar ku sentir symptôme yooyu ma doon cité ci sa yaram buñ ñëw hôpital. da ngay woote. am na numéro vert am na fukki numéro yu ñu joxe am na ñetti numéro plus numéro vert bi yoo xam ne mun nga ci woote bu ne ah man de situation bi laa nekkoon damaa jóge tukki wala damaa jóge mbootaay wala wax dëgg yàlla bi ngeen ne naa toog ba léegi ma maa ngi wër dem fu ma neex tey nag li may yëg sama yaram jaaxal na ma yaram bi tàng na am naa kii nga woote di nga jot ay docteurs yu waxtaan ak yow danañ la enquête pour mun a xam ràññee tuuti. li war ndax lii nuru na ne feebar bi ñuy wax la wala leneen la mhm. te aussi bëreet bi rek dem hôpital nañ ko wàjji ku am loo xamante ne wax dëgg yàlla wuyuwul ci yi ñuy wax te ma mun a toog sa kër na nga ko def parce que bu ñu submergé avec des petites pathologies de rien du tout alors que li am solo ngi fi day graaw mhm. ñi am ay maladie chronique di continuer def seen rendez-vous comme il faut mais ñi nga xamante ne lu la xosi parce que psychose bi nga doon waxtaanee sànq bi nga wax sànq au début mhm. dafa am nit ñi ragal nañu ragal boo xam ne lu leen xosi rek ñu woote centre d'appel baa ngi noonu ministère de la santé da ngay gis ku woote ne ah man de démb ba léegi sama baat bi de day xaw a xoos nga ne ko dafay métti mu ne déedéet booy wan na dafay métti déedéet ah waaye man dama ragal ndax doolee ma defal test xam nga mënul demee noonu mhm. donc dañuy laaj population solo mhm. ñu a dem est-ce que mën nga am genre symptôme yooyu te fekk ne du coronavirus bu baax ah yeneen feebar yaa ngi fi ba léegi de benn daw ci nag ah, <laughs> nga foog ne feebar yëpp dañu daw xajal corona. amul même <laughs> ah waaw moo tax moo tax ñu ne nga woote on te dit pas nga décider sa bopp. Mhm. boo wootee. Mhm. dinañ la expliquer ne lii ak lii ak lii su ko defee nga topp. mais mais ñi nga xam ne da leen a par exemple ñi nga xam ne faj ñoom leen ba am ci yaakaar la wér nañ. Mhm. est-ce que dañuy immuniser wu wala na dikkaat ci ñoom. waaw c'est question. toll pour le moment amaguñu loolu kenn mënu la ne ku ci amoon nga kii déedéet. les études comme je t'ai dit feebar bu bees la. Mhm. c'est une histoire de trois mois. décembre la génn euh, kii. Mhm. amuñu recul par rapport à ça voilà. amuñu recul mais grippe yi de kenn mosu immunisé yeneen façon grippe yi amoon. Mhm. kenn mosu immunisé moo tax chaque année da ngay vacciné nga am grippe bu subaa nga grippe année prochaine grippe voilà on suppose que ça va suivre le même le même. le que les autres. immunisation moom gisaguñu guñ ko ci. ci biir feebar léegi bu ñu gisee vaccin bi ñu ngi ciy liggéey bu vaccin bi amee da ngay vacciné wu su ko defee doo ko am. mais dafa am ku posé benn question bu xaw a doy waar ci rajo bi mu woote ci benn euh, nekk Sénégal. c'est vrai que jàng nañu ñuy mais ñun ci suñu bopp. ñu reyanteel suñu suñu suñu suñu cosaanu bopp faju bopp pour jëm ko daal bañ a dépendre ci les les trucs occidentaux tout. waaw mais day fekk nga am recul li ma la wax encore mooy lu bees la fi mu ne nii. occidentaux yooyu nga wax dañuy jàngat. il y a une multitude d'études en ce moment avec des publications dañuy observer li xew fi mu ne li naan real world evidence mhm. dafa am façon boo xam ne li ngay ni ngi koy dundee ñuy étudier li xew euh, actuellement mhm. il y a des études qui sont en cours laboratoire yi màcc ci xam-xam ci loolu yëpp ñu ngi ci garab yi ñu ngi testé ban garab moo mën a attaquer virus parce qu'en réalité grippe yi comme grippe amul traitement spécifique. on ne tue hmm. pas le virus da koy song wàccaat traitement symptomatique rek def dina la jox loo xam ne moo lay jàppal ci bopp bi métti bi dina lay jox loo xam ne courbature xam nga. dina noonu la ñu doon fajee grippe y' a pas un truc spécifique. mais bii comme dafa garaaw te gaaw te rey donc dañoo étudier ban molécule mooy dem attaquer virus ba nga xam ne du mën a multiplier wu. Mhm. comme sida ak yooyu ñëpp le fait que. virus bi du multiplier wu fees dal sa yaram xam ne du mën a évoluer ngay fekk nit c'est dans cette cette dynamique qu'on ngi waxtaanee ay molécules yu bari am na étude bu ñu def boo xam ne mu ngi ci wane loo xamante ne c'est intéressant en termes de résultats mais fi ne nii leeralagul ñu carrément parce que tu fais des études nga ne ah résultats yi de mënu na lu baax gis naa ko ñu ngi wane par exemple 24 la lañ def gis ne kat am na efficacité mais ça ne suffit pas nous en termes de de de de médicaments pour ñu génne garab ne gii ça y est mën nañu ko utiliser y beaucoup de choses déjà da war def benn étude boo xam ne da ko def nit nombre de personnes bu gën a important mhm. pour confirmer sa efficacité boobu non seulement mais pour xool ndax amul ay effets secondaires parce que effet secondaire en général day tuuti ay ay 2 pour cent 1 pour cent nga gis ne kii am na cas bi mhm. mais plus le nombre de personnes est important plus tu as la chance de détecter les effets secondaires garab bii de moom vraiment amul problème mën ngeen ko naan lii ak lii ak lii nañu xaar comme effet secondaire tollooguñu foofu mais gis garab boobu nit ñaa ngi daw déjà di ko uti ba ci Sénégal bi dem di stocké te egg te tollooguñu foofu kenn validé gu ko kenn amul autorisation de mise sur le marché dañuy toll ci étude pour valider na baax na am nañu yaakaar na parce que résultat yi jot a génn wax dëgg yàlla lu baax la. ñu mhm. ngi leen di wan ay signe voilà dañuy étudier lépp a jàpp. lan la ñu seet ci lañ gis ne que ce sont les personnes âgées de plus de 65 ans ñoo ci gën a dee parce que day fekk ñu affaiblir. Mhm. comme virus yëpp rek ku gën a faible moom lay affaiblir. Mhm. moo tax Afrique du Sud ñu tiit parce que ñoom dañu bari sida. seen dëkk donc bu attaqué ñi am sida mun na leen faagaagal. Burkina ki fa dee dafa am diabète tu vois boo ci boolee une autre tare qui entraîne une diminution de ton immunité daf lay gagné mais aujourd'hui ñu continuer jàngat yi maladie di gën a yokk xool on a vu que dafa ci ay âge am na ñu gën a jeune ñu koy am. tu vois yooyu yëpp yooyu ay jàngat la fi mu ne nii dañuy avancer di jàngaat et puis ce qui est extraordinaire comme chinois ils sont très pointueux par rapport à ça ils ont mis des mesures drastiques ñoom mhm. depuis le début la ñu lancé déjà études yi di traquer di xool di analyser au fur et à mesure ñun ci yooyu la ñuy sukkandiku seen jàngat ñoom pour nit ñi xool naka la ñuy développé yéen tamit topp exactement voilà moo tax Sénégal wala suivre ñeneen ñi ndax ñooñu bu ñu defee ne kat ñu dëgëroon bopp respecté wuñu mesures yi ñu leen jox di raxasu di moytu dajaloo bi di moytu kii bi ñi ko deful yëpp tey catastrophe mooy mooy italiens yi nga xam ne ñoom ñooy ñooy ñooy mm-hmm. africain wu euh, Europe mm-hmm. ñoom tam noonu lañ mel doo wax dara ba ñu def ko France dañu mën a raay ak négocier da ngay tere bro tere da ngay kii xam nga koo ci tere mu seet li ñu tere par exemple dañ ne fi ne nii ni ñu may ñu génn rek mooy nga dem defee ay course da nga def déclaration sur l'honneur mën na la nga doxantu tuuti sport parce que ju bay nit ñu tëju côté psychologique bi am léegi nit ñi loolu la ñu layee nag pour ñëpp du génn ba tey rek maa nga gis France ñu ngi menacé naan attention bu leen jël ouverture yi ñu may pour jàppale leen ngeen koy exploité nag pour mën a taxawaalu ji pour mën a génn ci d'accord docteur euh, Amy euh, ci àddina bi en tout cas ndax euh, émission bi dafay jaar ci synchronisation bi ci 14 régions yi fii ci jano bi mm-hmm. léegi fi ñu toll nii wax naa ko léegi cas yi bu nekk ñu ne day yokk na nga ni wàlle bi dafa gaaw mm-hmm. te suñu frontières yi wax nga ne tamit da koy yéex a tëj mhm. euh, mais dafa am yoo xam ñoom boo ko tëjee ñu ngi ci jéeri ji maanaam mhm. a gis mhm. gis kooku nag moo ñu gën a tiital képp ku yëngu ci lii te gars yi mën nañoo ñëw toog seen kër ne pat exactement kooku nag moo ñu gën a tiital moo tax ñu naan sa un problème de responsabilité individuelle ku nekk wax dëgg yàlla sa digganteeg sa borom war nga xoolaat sa bopp xam ne lii ngay def doo def lu lu lor nit ñi laa où on n'a pas de maîtrise c'est justement ça ñi nga xam ne dañuy wiiri continuer daal di dugg ne sarax toog toog seen biir jàpp seen ñàmbur te respecté ñu règle yi ñu wu ñu seen bopp loolu garaaw naa ah. mais kooku ministère amul am kenn amul maîtrise am li waral inquiétude bi c'est surtout ça xam nga ki nga xam nga xam ne kii la nga contacté ñi mu ñi mu contacté woon ñëpp ñu mm-hmm. surveiller leen tester leen xam nga xam nga kooku di nga ne ah man kat maîtriser naa ndax ñii xam naa mais tey ce qui mooy am na ñu nekk ci biir dëkk bi am na ñu jaaree ci suuf et depuis longtemps te xamuñu leen et pire c'est am na ñoo xam ne dañuy feebar sax du ñu dem hôpital kooku yàgg na fi ci ay façon feebar yu nekk bañ ñu ne ñu ne na yow la bañ ñu ne sa feebar la jaral na leen ñu nëpp nëppal seen feebar seen kër faju fa ba wër bu yàlla suturaalee mu wër mais ñaata la ñuy wàll ci diggante bi on est assis nañ ko wax tolloo guñu situation boo xam ne maîtriser nañu ñi experts yeeg ministère ku nekk ngi def sa kéemtulaayu kattan. pour que affaire bi baax waaye bu làqatu amee bu réeroo amee bu manque de respect des règles amee kenn xamul fan na mu jëm. mais démb démb ñu ngi gis benn benn chiffre xaw ma ndax parce que sax boobu dëgg la wala vingt cas dans la de de wala wala du noonu. dem benn chiffre. fu ñuy tànkee tibbee chiffre boog laa bëgg wax. Mhm. kenn rek moo habilité. Mhm. wax ñaata cas la c'est le ministère de la Santé. Mmh. Il y a une cellule qui a été mise en place mmh. qui surveille. léeg-léeg c'est le secrétaire général mais est-ce que boo ko ci ci ci ci inclure ko hmm. jur benn chaque fois dañuy wax fu bi jógee. fan la xam nga boobu la préciser bi ne woon Touba dañu leen ne Touba mhm. na ay nit ci famille am fu mu génnee rek dañ koy wax. ah da ngeen wax milieu bi. exact chaque fois que le ministre ou le mhm. secrétaire général fait une sortie dañuy préciser kii la woon fii dañ ko amee. cas cas importé la ku jógee tel dëkk ñëw da léeg dañuy wax sax ban avion la jëloon pour te di Air Sénégal la jëloon wala Iberia la jëloon vraiment c'est une communication très transparente mm-hmm. parce que ministère xam na ne làqatu bi amu fi sens mais nit ñi nag ñoo def ay spéculation mais am na ñu ne am na mille ils ont même parlé de la clinique de la Madeleine clinique la Madeleine dafa mën a sax accueillir euh, autant de malades amul sax cent lits bay xalaat di am ay mille personnes mu ne ngay dégg kooku tamit war nañ ci wax. loolu loolu moom est-ce que c'est le gouvernement parce que loolu nag wax dëgg yàlla ëpp na. population bi la boo xamul xamul kay xamoo. wax dëgg yàlla et wax dëgg dafa am solo. parfait. suñu diine yëpp dañuy tere fen. <laughs> c'est wax dëgg yàlla. Mhm. ak sos. Mhm. weesuwul na nga wax loo xamut. ak weesuwul nga wax lu lu wóorut. ak weexul weesuwul nga wax lu lu dëgg. wala nga wax ko rek sa coobare bakkan. sa coobare bakkan c'est extrêmement grave parce que yéen dëkk yëpp dañ ne on en guerre mais c'est réalité. guerre la te guerre boo xamante ne sa ennemi munoo jàkkaarloo moom xam nga loolu doy na waar. fu la ne lay jaaree. donc nit ki da ngay yemale say cër. encore une fois le message que nous on passe en tant qu'association en tant que professionnel de de la santé te li ñuy wax defuñu ko dul pour jàppale ministère de la santé bi nga xam ne moo am responsabilité bi. Mhm. te mënu ko yenu moom kenn. ñun nit ñu góorgóorlu ñun de ñu ngi leen di ñaan nit ku nekk wax dëgg yàlla sa digganteeg sa borom nga xool sa comportement. xool li la war sànq dama jaare liberté 5 maa ngi romb liberté 6 rond point moo boo gisee nit ñi jaaykat yi langue bi rabiso bi mu woon na mel photo xale yi ñu tëj école yi ne leen day leen jàngee seen kër ñu nga ca plage ya hmm. ñu ngay basket ñu ngay football exactement ce qu'il ne faut pas faire car rapide yeeg yi dañ ko sax war a arrêté en réalité boo gisul oto boo jël pour doxi di nga toog sa kër mënuñu ko arrêté ñu ne pas surcharge na nit ñi respecté les distance donc surcharge yi nañ ko arrêté borom oto yi nañu responsable nit ñi yéeg nañu responsable xam ne sa bopp ngay aar ak keneen ngay aar gis ko ci deful leen ñu ñuy wax su la dalee wala mu dar sa njaboot bul mere kenn léegi nga dégg Macky Sall lii danañ ko daggal saaga danañ xas professionnel yi danañ def lu nekk fekke ne wax dëgg yàlla li leen war ñoo ko defut waaye alhamdulilah bi nga xam ne am na ay Sénégalais yu ko comprendre mm-hmm. y a ne bougé wuñu de ñoom seen kër toog y yoo xam ne ñun yi chaque jour ñu recevoir ay vidéo wax dëgg yàlla population bi du ñu encouragé du ñu félicité du ñu kii pour xam nañ ne lu ñuy dund dafa métti fi mu ne nii. Mhm. ndax chaque docteur bu jóg dem hôpital tiit na parce que yow mun nañ la wàll. Mhm. donc ñu ñoom ñu takk seen fit di ko def ku ci nekk nga jóg di jàpp di ci liggéey bi. kon population bi ñoom ci seen bopp war nañ ci góorgóorlu. taxaw ci jàppale taxaw ci jàppale ñu ci loolu ñun foofu lañ leen di ñaanee. d'accord est-ce que combat bi bi bi ministre bi wax euh, am na sax ñu a woo a jàpp ci liggéey bi ñu génn def ay déclaration ne ñoom it daañu ci jàpp. Mm-hmm. est-ce que réseaux sociaux yi aussi parfois nekk genre entrave ci seen ay liggéey. bu baax sax. Mm-hmm. fake news. Mm-hmm. non ñu liggéey ñu yàq ko. gis nga ñun dañuy sax choqué. man chaque jour ma recevoir message am na sax ñoo xam ne am na une bonne attitude dañuy yónnee nañu est-ce que dëgg la wala dëgg. à ce point la ñu toll am na ñoo xam ne dañu jot benn rek balancé ñu est-ce que kii li wax dëgg la est-ce que tu valides su ko defee nga je valide nga ne non non c'est faux chaque jour ñu doog dig ay nouvelle nit ñi dañuy wax a wax allahu akbar doo comprendre au lieu ku nekk tey ku nekk déglu. Mhm. ku nekk def li ñu la sant nga wax ko déedéet ku nekk ngi utee information xam nga di ko vivre am na ñoo xam ne yàkkamti nañu joxe information bu bon. daf leen di neex rek ñu ne mille personnes dee nañu astafurlah astafurlah lu ko fi jar ci gën àddina hmm. kan mooy ñaan loolu suñu borom sincèrement man sama message il est clair hmm. et je le message de de l'association des femmes message de tous les médecins du Sénégal et de du ministère de santé parce que ñun ñëpp ñoo bokk di wax même wax bi ñun balaa ñuy jóg dañuy dem xool lan la ministère wax dañuy dem ci réunion yi ñu diggal ñu naka naka la ñu war doxee pour ñëpp am même même message hmm. bu ñu bugg buggee moytu feebar bi law ci Sénégal li koy arrêté yomb na góorgóorlu leen ngeen respecté mesure di raxasu bàyyi làmbisoo bi bàyyi jàbbante bi kuy jóg na fekk ne li ngay jóg munoo bañ a jóg pour def ko farata dëgg la te même booy dem da ngay respecté règle yi d'accord mais euh, docteur euh, Amy Ndao nan nga jàngate gaa yi dañ wax ne mooy yi c'est vrai ko demee noonu am na ay aide yu yu dugg ndànk ndànk mais joli sax da ngay gis ne matul day am rupture dans les pharmacies gars yi am spéculation bi ci am ñi di ko jaayewaat lii <laughs> eh, affaire bi est-ce que. alors rupture yi mënu cee ñàkk parce que rupture euh, rupture ñëpp ñuy jaay dañuy def ay provisions. Mhm. prévision bi boo koy prévision yi boo koy def. da nga mhm. koy def sur la base de li amoon daaw li amoon xama ak lu mu mhm. soo nga def say quantité. def say commande. comme li dafa bette. Donc on peut comprendre qu'il La demande est trop importante mondial. Mais les gens ont eu le temps de se rattraper et s'organiser. Sénégal chance bi ñu am jeunes par exemple am nañu usine bu koy def Sénégal donc ñu ngi def ay jéego adapté wu ñu ngi liggéey à flux tendu fu ñu paree rek démarrer voilà beneen ñëwaat mais fi nga war a wax nag mooy li nga yëkkati mooy ñi nga xam ne dañ ci profito di ci wut dara man sincèrement loolu mënu ma ko comprendre te loolu kat yàgg na ci réew mi su ko defee amee ñu yokk paas yi su tabaski ñu yokk soble bi entre nous et moi ça c'est quelque chose que je n'ai jamais compris ba pare dañu créer inflation boo xam ne dafay andi problème économique ci réew mi yërmande war na daw ba nga xam ne au contraire ñëpp soxlaakat nga ne naa oyofal surtout loo xam ne day laal santé nit ñi rek loo xam ne dafa mën a rey yokk prix yi amul sens nañu wàññi mais da nga wax léegi lu am am solo loo xam ne da gis sa gars di ko tooñante moo di coronavirus xàmmewul Makka ak Medina Touba Tiwaawan ak. ak Rome ak Rome. ak moom waaw amul dëkk bi lay mooy ak dëkk bi aar moom daal day day mbëkk day bëkk di def rek. borom doole yi nag. faalewul kenn président yi ñaata président ñoo dem defi test. Trump Trump mi nga xam ne <laughs> ñëpp xam na ne mu ngi lëmbee àdduna lu ko neex lay def lu ko neex la moom au début dafa ne feebar bi amul fu mu mujjee dafa dem defi test. waaw dafa ah, seet Prince Albert bu Monaco daf ko am nekk nii. oui oui oui. Manu daf ko am fi mu nekk nii. comme un euh, ah, artiste euh, vice bi. Euh, voilà de la santé c'est juste pour te dire que comme ñooñu jomm leen ak sama ak ak sama ki nga xam ne yaa ngi ci sa ruq sa kër toog jàpp sa jàmm nga yaakaar du la fekk. moo amul frontière. nga yaakaar ne am na ba boobu war a takk ba doo feebar bu dina jàpp. nga yaakaar ne sëriñ boo xamante ne mën na la aar. sëriñ bi bu doomu jaamoo ñëw fa ko fekk mu toog la ko naan dong ngeen feebar te ñooñu ndox nag di di bàkku. soo moytu ñoom ñooy yóbbul feebar bi seen sëriñ. déedéet ah bu ñu la toog sa kër bu circulé yow nga ne damay dem par force ziare ji sama sëriñ fekk yaa nga feebar <laughs> boo wàllee sa sëriñ nag. nga dëgg loolu de loolu. xam nga parfois tu comprends pas la logique des gens. Mhm. am na yenn façon réflexion yoo xam ne nit mënu ko comprendre. nañu dellu si waat ci affaire bi sam jàpp jàpp nga ne ndombo mënu ci def. je <laughs> t'assure wallahi azim déjà dafa xaraam. <laughs> Ah waaw loolu moom. déjà dafa xaraam dafa xaraam ah, waaw. donc egg euh, egg du ñu sax dugg ci domaine boobu ba ñoo jóg mais li ma mën a wax mooy. noo ko blindé bu fekkee ne. comme comme ñoo defloo ko waaw feebar mënoo koo gis. Ah. te bu ñëw du tàggoo. te bët mënu ko teg ne mi ngi nii. wallaay ne la ciy génne mooy. moytu raxas say loxo moytu ngeen bañ a laalante. ngeen wañ a a wàllante te tàllal sa loxo ñaan sa borom ah, kooku moom dëkk bi yëpp d'accord àdduna yëpp d'accord nañ ci ñëpp xam nañ ne lii ah, affaire bi comme ñun nit maîtriser wuñ ko mhm. suñu xaalis bari munu ci dara mhm. suñu xam-xam munu ci dara bu ba léegi mu ngi law ñu xam ne nag kon foog ñu dolli ci ñaan ndax dafa am xëy na borom boromam boo xam ne moo ñu ko sànni moo ko mun a teggi donc nañ ci boole ñaan moom mhm. ndax ñun ñëpp dañu am diine nañ ci boole ñaan bu baax mhm. waaye nag loolu yonent bi wax na ko sax de fi toll nii moom ñaan rek ñaan waaw oh, ñaan ñaan ak fagaru ak fagaru voilà nag fagaru maanaam booy ñaan da ngay taxaw ci dara ok voilà ah non parce que ki ñuy ñaan dafa am fulla ki ñuy ñaan am na fulla gu toll ne li la war boo ko defulee mhm. du la fa fekk de da ngay def li la war ba pare li nga xam ne dépassé na la nag moom mu def ko. ah yow jàng nga aaya bi inna Allaha laa yuxayyiru maa bi ah, qawmin mu ngoog hattaa yuxayyiru mu leer nañ mhm. yàlla moom yàlla moom tant que soppiwoo sa doxalin toog fii di ko ñëw yoonam newu ci rek rek parce que bu fekkee ne yow fagaruwuloo góorgóorluwuloo mhm. wan ko ne lii kat jaral na ma ko lii kat maa ngi ciy góorgóorlu du la set du la faale mhm. ñu ne la da koy febar da nga damay dem nuyu ñu par force léegi après ngay mere yàlla <laughs> non mais nañu ci dëgg donc daal man daal suñu suñu message pour revenir à vraiment li ñu doon wax mhm. et j'insiste sur ça pour ko population yi xam ko mhm. feebar bi am na fi mhm. wax dëgg yàlla am na fi li koy aar yomb na toog leen moytu leen lambi suub moytu leen laalante bi képp kuy wax ak moromam au moins à un mètre de distance bu fekkee ne mënul ñàkk raxas leen bunt yi raxas leen kër yi mu set ñu profité ci nettoyé walla dëkk bi benn yoon na ngeen koy sëqat na jël mouchoir sëqati bu paree sànni ko ci mbalit bi fexe ba bu mu ko laal walla nga jël sa kudd nga nga nga utiliser ko am na solo beneen message mooy professionnel de santé yi def leen attention yéen tamit aar leen seen bopp. <laughs> aar leen seen bopp. mais est-ce que est-ce que maladie bi am na booy traité benn parce que xëy na walla walla loolu leen ko. Mhm. est-ce que y a un pour chaque malade wala da nga di dem rek nii fi mu toll ak parce que ça dépend. anyway li munti am mooy. Mhm. Euh, naka dañ koy waxee sax fagaru moo gën faj wa mm, bien sûr kuuru fagaru. Mhm. moo gën a yomb fuuf. Ah, bien sûr kuuru faj. waaw parce que dafa jafe moom. ci feebar yëpp wane nañ ko. on fait des études pharmaco-économiques pour wane que. boo boo boo boo boo defee prévention lii la lay coûter dañ koy defal dëkk yi mhm. économiste de la santé xam nañ li may wax mhm. pour wan benn réew ne que investir leen ci prévention parce que boo leen investiree dina leen coûter de l'argent mais li ngeen nar a génn ci xaalis pour def prévention moo gën a yomb téeméer yoon li ngeen nar a def xaalis bu nit ñi feebaree ngeen faj leen aaru aaru def ca xaalis moo gën nga xaar ba nit ñi feebar exactement parce que surtout bii nii day andi ay problème respiratoire ba nga xam ne dañoo war a duggalal ay aspi ay aspirateur ay appareils yoo xam ne ñu respirateur ak yooyu yëpp pour aider la pour nga noyyi bu baax et ça c' est des c' est des c' est des prises en charge très lourdes c' est des de réanimation. Hmm. ñun ñaata réanimation la am Sénégal. ñaata lits de réanimation la ñu am ñaata respirateur lañu am c' est ça la vérité. Hmm. donc balaa ñuy toll foofu ngir yàlla te nga xamante ne li ñuy laaj pour nga bañ a yegg foofu dafa yomb. Hmm. moytu rek la. képp. nañ ci góorgóorlu jàppale ñi ñi ñi ci gëstu ñi ci liggéey ndax kat da ngeen ñuy dimbali ñu dimbali leen personnel de santé bi nit ñi sonn nañu tout le monde est mobilisé nit ñi dañuy liggéey ba xaaju guddi gisa waa ministère saa yoo gisee ñu génn léeg-léeg nañ liggéey ba ay ñu nga fa hmm. centre d'appel yi coordination bi fan la ñuy test yi nag ñu ngay testé chaque jour bu ñu yenee ay résultats nañ testé au moins ay vingt personnes parfois plus personnes ki ñu gis ak contact am di wër contact yi di leen di leen testé. c'est énormément de travail ak toute la logistique. hôpital bu nekk day woote district yi sama situation ah problème laa la laa jàkkaarloo ñuy coordonné di corriger di xool lu ñu war a def man li laa soxla matériel bi ñu ngi convoyé fu nekk ñu gis dispositif yi au niveau des accueils des hôpitaux gis nga affaire bi fu mu laal dafa bari dafa laajte une discipline extraordinaire au niveau de chaque individu mais dafa nécessiter une organisation aussi extraordinaire au niveau du ministère au niveau des structures de santé mais au niveau aussi ñi am kàddu ci réew mi ngir yàlla nañ ci jàpp képp koo xam ne yow kilifa ga boo waxee ñu déglu la boo waxee ñu déglu la am nga mbooloo am nga organisation wala chef de famille nga ngir yàlla teel sa njaboot waxtaanal ak sa njaboot nga wax leen dëgg gi ñu jàpp ci du yàgg période la rek mais bu fekkee ne da nga bëgg a résister. yaakaar ne a nit foog nga am yaakaar. absolument foog nga am yaakaar. te gis nañ Chine ni mu ci génne mën nañ cee génne waaye balaa ñu ciy génn am na fu ñu jaar. waaw xaw nañoo ah, foofu nag ñun la ñu bañ a yegg. Mhm. parce que ñun bu yeggee foofu dina gën a métti chaque jour ngeen gis directeur général organisation mondiale de la santé moom mhm. yàgg na wax Afrique. Mhm. moom li leen tere newal mooy Afrique. il a utilisé <laughs> il peut être mais bon. parce que li tax mu ragal wax na dëgg. parce que dañu amul doole ak organisation ak moyen wu. li mu laaj. voilà lii riposte bi laaj la ñu ant moo tax boobu ba léegi ndeysaan mu ngi aalu. Hmm. ne Afrique góorgóorlu leen. Afrique teel leen jóg. Afrique jóg leen ci. bu mu duggu bu mu dugg bu mu door parce que bu xasee ba door bu dépassé day ëpp ñun nag dugg na ba pare. Ah, y' encore des pays en Afrique yu ko amagul de. am a pays yoo xam ne amaguñu benn cas. ñun en Afrique de l'Ouest ñun ñoo am le plus de cas. Mhm. et pays sur toute l'Afrique. Mhm. kon ñu ci fi mu ne nii situation bi ñu tollu mooy la situation euh, à haut risque. fii ak une semaine. Mhm. semaine bii di ñëw. benn docteur dootul nelaw. ministre bi xam naa ne moom ndeysaan <laughs> nelawatul. ak tuut ak njabootam yépp bu ñu xoolee dëkk yëpp ni ñu évolué nga xool nu mu yokkee par semaine. Mm-hmm. ñu ngi ci semaine bi nga xam ne phase bi nga xam ne fa la presque ñoom ñëpp multiplier par n donc flambée boobu la ñu ragal moo tax ñu ne ku nekk na toog këram li laay wala suuri na nit ñi toog seen kër li ñuy wax du caaxaan du kaf c'est une réalité dañu am tendance de trop prendre les choses à la légère. Mm-hmm. wala yaakaar ne. mun dara jomuñu sénégalais. waaye dara duñu jot. dara duñu jot. Ah, fii Sénégal dara fi am fuñ ko teg. loolu moom loolu Sénégal kan la gën. Sénégal kan ñu ëpp diine Sénégal kan la ñu ëpp xam-xam. Mhm. Sénégal kan la ëpp mën-mën. Mhm. nañu xool ci ñeneen ñi ñu góorgóorlu suuf si. non fii dara du ñu daal moom loolu defe naa ne ku. xelu sax waroo wax. parce que foofu yàlla nekkul foofu yàlla nekkul ci ay lii duma daal ak yooyu duma a des ñu ngi wax naan dara jëlee man damay dem kenn mënu maa tere dem fi ma bëgg jëm kenn mënu maa tere fi ma bëgg jëm ah ndax wallahi y a des vidéos qu'on nous a envoyé kenn mënuñu tere fu ñu ay vidéo yooyu je t'assure léegi fi ma bëgg ñu aborder aussi mooy organisation au niveau des structures de santé voilà très bien parce que ci tomb boobu sax ci la tënkee mhm. dafa am solo mhm. gis nga pour bañ maladie jaxasoo mhm. il faut qu'on mette en place un accueil à l'hôpital et un système de tri kooku lu am solo la tànn leen waaw kuy dugg ci hôpital bi rek am na foo war a jaaree dafa war a am circuit. Mhm. bu chaque structure de santé war a mettre en place. Mhm. pour éviter jaxasoo bi ak jël systématiquement température képp kuy dugg hôpital ak koo mun ci doon nag. Mhm. bu dee docteur bi liggéey si. bu dee malade bi ñëw def si consultation. bu dee bu dee ñiy nettoyé ñëw def si seen liggéey ku mun ci doon am na benn sas bu ñu war a créer ku ñëw jaar ci ba nga xam ne ñu mun a ber ñu am lii. su ko defee professionnel ñu leen seen yoon a ngi nii ngeen dugg leen ngeen def fi seen liggéey ñuy feebar ñu orienté leen donc ok yow lii la tax a ñëw lii la ñu orienté leen lii la tax a ñëw demal ci service de médecine kooku c'est important ce dispositif doit être mis en place il n'est pas encore effectif partout mm-hmm. donc samay mbokk docteur laa mm-hmm. ñaan ak le système de santé mm-hmm. pour ñu def attention si affaire yu mel noonu il faut absolument que muy hôpitaux yi muy clinique privée yi <laughs> on a tendance à parler du, du voilà du public oublier les structures privées elles sont aussi exposées que les autres donc ñoom itamit nañu mettre des comités au niveau de leur structure connecté wu ak ministère les recommandations ministère et mettre en place des choses très claires dans leur clinique ku ñëw ñu test la mhm. ku ñëw am nga foy jaar ku ñëw am nga loo war a def ba nga xam ne dinañ mën a def mesure de de de prise en charge te aussi ñaax suñu mbokk médecins yi bu ñu fàtte yeneen maladie yi mhm. ça s'est passé avec Ebola dans beaucoup de pays li ñu gagné woon dans la lutte contre beaucoup de maladies dañ ko perte mhm. parce que tout le monde est focalisé sur bii maladie ba nga xam ne géretuñu yeneen ñi. Mhm. il faut ñu ubbi bunt. paludisme baa ngi fi ba léegi. Mhm. bu dee wàññeeku na. diabétique yaa ngi fi ba léegi di dem defi seen consultation. cancer yi. nga xam ne dañoo am seen ay ay euh, nu ñu koy waxee seen euh, cure ñu war a def chimio chimiothérapie. man dama am nekk ci association boo xam dañ leen jàppale il y a des dañuy repousser seen ay parce que fi mu ne nii hôpital dafa jaxasoo ak kii bi donc ça aussi maa ngi ciy ñaax ñaax sama mbokku docteur yi attention yeneen maladie yaa ngi fi am ba léegi yeneen urgence yaa ngi fi am ba léegi il faut pas qu'on passe à côté que nit ñi di dee ci yeneen maladie plus que même Covid 19 bi ñuy wax mm-hmm. donc war nañ ci may xel un peu sur cela et ni nit ñi rek vraiment Sénégal. du dëkk bu riche. d'accord donc partie des pays en voie de ah, développement. amuñu doole amuñu doole amuñu doole nañu fagaru. nañu mm. fagaru bañ a xaar dépassé ñu voilà d'accord voilà mais euh, soxna si ñu ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm euh, euh, docteur Amy ndaw nga bokk ci mbootaay gi nga xamee ne ay médecins ñoom ñoo ko jiite tey tamit bokk ci xeex bi fu nekk ngeen dugg fa wax dëgg yàlla di ñaan yàlla tamit mbër mi ngeen jàkkaar loolu ngeen daan ko te mooy coronavirus bi mhm. euh, yàlla mën nañ cee jàppale ndax ba léegi amaguñu kenn ku ñàkk bakkanam tey sax yàlla bu kenn ñàkk bakkanam très bien ñu ñaan loolu ndax yàlla nag mooy def a waaye daal nañ ñaan rek mhm. mbokk yi doon déglu ko ñu ngi leen dañuy fagaru bu tëjee ñaan bi nañu tëjee nañuy ñaan tey fagaru fagaru ñaan goo taxaw ci dara mooy li ma wax ci biir émission bi maanaam booy ñaan day tax nga am looy jóg ji ba noppi maanaam sabab